léegi ngi soxna yi nag ñu ngi noonu yor seen ay ndobaan euh, ñu ngi noonu soxna si tur tur bi naka la soxna Baale foo jógee Malika euh, kañ nga ñëw fii vendredi nga ñëwoon démb euh, da nga ñëw pour dajale wala pour góob ci ban daayira nga ñëw benn baraag daa nga ñëw fii <laughs> lan ngay euh, soññee sa mbokk jigéen yi surtout xale. soxna Bali naka. Mbacke Bal waaw kay soxna Bali. voilà ñu ngi euh, Maodo Mouride Daaru Salaam. ci liggéey bi gis ngeen euh, mbokk Baye Fall yi góor ñi ak soxna yi ñoom ñëpp voilà gis ngeen leen soxna yaa ngi nii soxna yaa ngi soxna si euh, ñoo ngi lay nuyu di la ziar tur bi naka la soxna Seynabou Diouf soxna Seynabou Mboup Diouf yow fan nga jóge man dindi sëñ euh, mas nga ñëw fi waaw ñëw naa liggéey bi ah, kaw ca kanam rek. liggéeyal mhm. Seex Ibra Faal rek. da ngay maye ndox da ngay dajale wala da ngay daj. damay yi. Mhm. waaw mhm. lan ngay soxna yi. xanaa ñu gën a góorgóorlu rek gën a am pastéef rek. waaw fu góor yàlla yi jaar rek. ba tegg rek ñu jaar. rëy si ñoom. torkal waaw li fi ba tey mu ngi ba léegi jógu fi. mooy lan Manseraay ma Faal. mooy lan muy gëm gi rek ak dëggu gi ak gi rek. waaw gën a bëgg suñu waa Manseraay ma Faal. torkal waaw. jërëjëf. waaw Faal Ndiaga

Euh, léeg-léeg nag ñu génne ngóobaan gi dagg waaye léeg-léeg tamit ñu génne téléphone bi ndax euh, ñaari tànk yi dañuy boole muy euh, tànk taalibe di liggéey ci waaru sëñ bi comme tout le monde xam nañ ko mën nañ ko. ah kon ni leen ko waxee rek bu laajee tamit dañuy dagg waaye day tamit jël caméra bi tamit di filmer incha allah bu ci nekk rek macha allah. taxawaay la boo xam ne nii tamit am na solo ci liggéey bi macha allah ñu topp rek liggéey bi ko. Kumba ci Dakar. yëmbal benn baraak. yëmbal euh, ñëw fi ay ah. euh, léegi nan nga gisee liggéey bi. ah xanaa sant rek. Hmm. sant bu sant rek. Hmm. waaw daanaka moom defal nañu loo micro na la jege micro bi na jege sa gémmiñ naka defal nañu loo xam ne nii mhm. sant rek a ñu war mhm. liggéeyal ko ba xëy dee mhm. gis naa ne yaa ngi ngóobaan gi daa mel ni da ngay dagg de waaw sant rek ma ne daa mel ni ngóobaan gi sa loxo yaa ngi dagg de waaw waaw liggéey rek moo wër kon mas ngaa mas daal waaw góob nañ góobati moom waaw yaakaar naa ne moom yàgg na moom yàgg na lan ngay dénk soxna yi na xale yi waaw xanaa ñi gën a dooli góorgóorlu rek di jaayanteeg suñu digganteeg sëñ waaw loolu rek yaakaar naa ni moo moo fi des. sa daayira bi nu mu tudd nga ne. man maa ngi jokk nag wal maraam. ñu taaxu wal maraam. waaw baax na jërëjëf. taw fiya incha allah. bal ma rek bal ma rek may ma une minute une minute tur bi naka la. sigil Kaba. yaa ngi góob de. daa mel ni xam ñaata yoon ngay ñëw fii lan ngay dénk soxna yi di woo di leen wax rek ñu ñëw ndax fi moom njëriñam liggéey sëriñ Sall moom waaw kanam rek waaye doon dellu kon xam nga lu ñuy dagge lay xam naa ni ñuy dagge macha allah léegi lan ngay yëg bi nga ñëwee ci toolu sëñ Sall yi xanaa yokk ba yëg macha allah yokk ba yëg ko rek waaw ban daayira nga ñëwee yow fii sëñ xaalim tin ah sëñ xaalim tin waaw ah, dëgg la dëgg la ok kon baax na soxna fàtte ñu tur bi Oumy Fall jërëjëf Fall mhm. tur bi naka la wëlbatikul jàkkaarloo man noo tudd Fat Bintu Diop foo bàyyi ko Louga euh, mos nga ñëw fii mos nga ñëw ci tool yi ah lan nga yëg bi nga ñëwee bi nga dellu see ban nga ñëw yow fondation Sopp Sëñ Saliou zone ah, lan ngay dénk soxna yi nga xam ne tamit xañ na ñu ngi ci waar wi wala ñi nga xam ne xañ na mosuñu ñëw. ah di leen wax ñu ñëw rek te fii moom. xam naa dañ lay bàyyi bañ la téye rek nga wéy ci waar wi jërëjëf. la fekk ci ah, soxna si ñu ngi la fekk ci fi xam ne mooy Maodo Mouride tool yi. waaw foo jógee ak noo tudd. Fatou Gueye laa foo jógee. yaa ngi tudd Diop. Diop côté Louga. waaw côté Louga. waaw ban daayira nga ñëw yow. daara kii sëñ Daraame. sëñ Daraame. waaw. Euh, ñaata yoon nga ñëw ci tool yi. lii mooy sama ñeenti yoon may ñëw xel ñeenti yoon lan nga yëg bi nga ñëwee ren. ah ak yëg kii rek sëñ Salew. Mhm. ndax sëñ Salew moom. Mhm. mooy borom kii jox ma ndaw ma def si ñëw. sopp ko rek mm. moo tax ma ñëw si tool lan lan ngay dénk mbokki soxla yi nga xam ñu ngi teew ci daara ji waaye mbokk yi nga xam ne tamit jotuñoo agsi leen wax rek ñu agsi moom li ñaan sëriñ Saliou yàlla na nangu mm. ñu ñëwul tamit yàlla na ñam bu déwénee incha allah mm-hmm. rek laa ñuy diine ji ak suñu toll lan moo war a nekk taxawaayu jigéen taxawaayu jigéen rawatina liggéeyu sëñ bi euh, xanaa nekk si rek mm-hmm. nekk si rek doot ay yaay faal fas rek liggéeyal sëñ Touba mm-hmm. moo ñu tax a yow lan ngay def nga ñëwee ci tool yi lan nga doon def lan laay def lan ngay def maa ngi si ngóob mi maa ngi si ngóob mi da ngay ramassé di dagg wala da ngay dagg damay ramassé di yóbbu waaw ren laa mas a ñëw si ngóob mi nag at yi yëpp njëriñ laa daan ñëw njëriñ mi njëriñ laa daan ñëw tey laa mas a ñëw si ngóob si ngóob mi waaw tubaarkala macha allah niil niil wax ak ñi nga xam ne ñoom nga bàyyi foofu leen nuyu ñi ma bàyyi foofu noonu di wax ne gis ngeen liggéey bi rek tànk sëñ Tuubaa moom amul tànk sëñ Tuubaa amul amul amul tànk ginnaaw moom tànk kanam rek la am di wax rek ñepp yu ñew ci liggéey señ taxaw rek mom lañ fi am amuñu fi leneen ma mom rek lañ fi am fat lañu toy fatigé fatigé jëré jëf ma señ bi ñu ngi la ci tool yi tur ak fan nga joggé assalamu alaykum mbokk talibé mbokk ñu mbokk may man ma dëkk Touba Khayra mm. joggé Dakar mm. parcelle and mm. wa kër Cheikh Cheikh Salou euh ñaata yoon ngay ñew ci tool yi liggéey waaw ah, Maodo Mouride moom bii mooy sama troisième fois mais xam-xam doon naa mhm. bi nga ñëwee ci tool bi. non yëg bi ma am moom wax dëgg yàlla man yàlla xam ndax Serigne Sall dafa nekk koo jëmm joo xam ne su ma wax si moom sax sama xol day tooy. Mhm. te li ma defal moom man gis naa ko baax a baax. Mhm. loolu ñu si mën a wax. ah Serigne Sall mooy nit ki nga xam ne daal waxoon nañu jox leen man ndaw si ñoom te boo xool li ma xool lépp ñu boo ñëwee fii nii nag nga naan ñi nekk nii est-ce ay nit la jinne la ndax dugub ji boo xoolee dañuy xëy ñi ngi xëy 8h 7h lii nii la boo xoolee maanaam da ngay jàpp ne ay jinne ñoo rax si affaire sax. jox leen ma ndaw ñii ma def ci li sëñ bi daan def ci mag ñi yow lan la def ci yow boo boo ñu ko doon wax. li def si man bëri na de. loolu ñu si mën a wax ñaar ba ñett sens na si man lu bëree bëri bëri wax dëgg yàlla si moom dem ba sens dëgg-dëgg sama àdduna sama bii daal hmm. sëriñ Sall su su waaw waaw xel xel xel lay àggale. wallaahi macha allah lan lan ngay dénk mbokk taalibe yi. mbokk taalibe xanaa di wax ni ñu fas fas yi li bëgg lépp daal ndax fii dafa nekk loo xam ne mën nga fi liggéey ba wàcc nag ba ñibbi te doo si am dara ndax da nga koy yàqaat mais bu dee da nga def loo xam ne sell na. wax dëgg yàlla boo ñibbee ki nga bàyyi koñ. yaa na sëñ Saalum fay leen ko fa. di nga xam ne moom dina xam ne demal nga xel. loo jàpp ne mooy mooy mooy yàq liggéey bi. yàq bi maanaam ñëw fii caaxaan topp def loo xam ne daal waroo ko def. affaire yu comédie yooyu noonu da ngay ñoo xam ne dañuy liggéey def si bool loo xam ne. di watt si kaw di bàyyi si suuf. di xeeb loo xam ne daal mën na la yàq lu bëri. Mm-hmm. maanaam daal comme ni ko mag ñi waxoon di sellal daal. Mm-hmm. sellal di see am solo. macha allah sëñ bi noonu la ko bëggee woon. macha allah fàttali ñu tur bi. Mouhamadou Mourtala